comme gars yi kii mooy Yacine Yacine nag dafa am ak doom kii nga xamante si nii moom mooy Danta nekkoon the best family doon waaj a takk Jayla dama def vidéo ne dan ku baax la le fait que mën a dan ku baax la nee na moom naqaru ko la ko jëlee ak famem parce que dan da koo ëmbal am ak moom doom ba pare bàyyi kook doom bi mi ngi toll ci 4 mois 5 mois la doom bi di tollool wala 4 mois lay doog a am ci ay at daan na fa dem nag. di leen seeti chaque mu fa daan dem affaire yooyu dan dafa dem ba mujj gi day wër naan jurul doom ji mu saxam kan mooy yaasin te fait que moom moo ko jur moom moo ko ëmbal moom moo katt ki nga xamante si nii moom mooy yaasin ba am ak moom doom yaasin nee na doomam ji nga xam ne nii moom la dan jur mun ta am sax kuus boo xamante ni da koy bu dayee moom lay kuusoo wala ay laytaay wala dara nee na moom mooy débrouiller di di jël xaalisam di ko jëndal ay kuus sànni doom ji ba ko man barki alxuraan karim nee na jamono ji li muy dind dem ci télé yi sax la bëgg instant bi génn wax ci télé yi kii nga xam ne mooy Yacine moom laa affiché man nee naa leen dew ma ci kenn joxuma information kenn ku ñëw ci man nag nettaliil ma jooy ak sa famille pour ma jàllale la dinaa la dimbali ci daraja yàlla dan ngir yàlla jëruntu bi geesul sa doom geesul sa doom mën na doon ministre mën na doon député mën na laa jariñ ñu bari soxla nan doom mënuñu koo am yow nga ëmbal am doom ba pare di ko daw bàyyi koog yaayam yaay ja di sonn en tant que jigéen artiste sénégalais yi am leen ngor am leen lu ngeen di xool am leen ngor jay laa moyul sa bopp jan bi jay jay laa moyul sa bopp dan day ëmbalaate de dan day biiralaate daw am na lu ko doy parce que Yacine na ngi nii di jooy ak ay mbokkam dana ko ëmbal kat ko doom jaa ngi toll ci 4 mois ba pare mi ngi nii munu ko munu dundalu ko defu ko dara daan na fa dem sa perfeket mais léegi demeetul noonu sànni ko ba ko gel bi gel bi diminuer def lépp Yacine a ngi nii yeneen information nag dinaa ci ñëwaat am na nu muy demee sax ma live Dieyla dinaa ci gën a leeral gën jee xuut parce que am na lu laxaasu ci biir loo xam ne xamu leen ko woon sa waaye ni ma leen ko waxee rek Europe laa nekk nekkuma Sénégal mais nag du ma joxe information bu baaxul lu may joxe rek am na lu ma ci leer nañ ndaw si dama ko yërëm déglu leen. doom jaa ngi noonu di jooy. mais yàlla baax na yàlla mooy rëb nekkal. doom jaa ngi noonu di jooy dégg ngeen ko merci.